asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 1er avril 2019 ñu ñëw ci yéen yëglikaay yi sunu làmb nag tey la ñuy xëy commencé ko yëglikaay bi nag tey li mu xëy wan ñu wala mu wax ñu ko kam ñu wan moom coono jàpp na ko wala mu jaaxle wala mu lànk kandaare yëglikaay bi di sunu làmb xëy wax nu ko nee na li leer ba leer nag faas moom tas ña rajax ñu ne ko lu xew sunu làmb ne Tapha Gueye démissionné bàyyi na écrit ba yoratu fa benn ndombo kaay bi di sunu làmb xëy wax nu ko leneen lam ca yokk nag nee na kii di Papa Sow moom dàq nañ ko ci biir écrit face sunu làmba nu ko wax de du sama ay wax mu ngi ci kaay bi leneen loo xam ne moom yëglekaay bi da caa ñëw mooy diggante kii nga xam ne nii moo di Lac de Guiers numéro 2 ak Boy Niang boo bëggee dégg dëgg day seenu combat ñoom ñaar léegi leer na nañ sunu làmb nee na le 14 avril wala boog la 14 juillet la ñuy bëree ñoom ñaar ñii maanaam fukki fan ak ñeent ci weeru sulet wi nu jëm daal ca la seenu combat nar a am moo tax sunu làmb ne jàpp leen kii di Boy mu nga woon Japon waaye nag jóge na fa daal France fas yéene nag namm ay gànnaayam fas yéene jàmmaarlu ak Lac de Guiers 2 bu nu yeggee le 14 juillet Lac moom jamono jooja mu ngi ci réew mii di Ndakaaru di préparer boppam ñii moom dañoo préparer ba sonn wala ñu xaar ba sonn waaye combattre na leen ticc ñeenti mbër lañ yoo xam ne daal ay VIP la leen yëglikaay bi tudde ka jëkk Gris Bordeaux bu Fass la keneen ka ca topp Ama Baldé bu Pikine ñetteel ba Bombardier bu Mbuur ñeenteel ba Tapha Tine bu Bawal yëglikaay bi ne ñii day est ce que newuñu ci dansé sax ndax nag saison ba mu ngay xëccu di jeex te combat moom da leen a tël lool ba yegg sax ca loola leneen loo xam ne moom dañ koo fekk fii nga xam ne nii moo di ca Leewtoo point net wala boog Leewtoo TV mooy li leer mooy démb day fa nga xam ne moo doon ca arène national kii nga xam ne moo di Alioune Sèye Junior kii di mbay guy gi mayu ko dara daal jàll ko dem ci aw yoonam continuer ca la mu nekk leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi di sunu làmb ca stadium Iba Mar Diop la amee woon kii nga xam ne nii moo di sëñ Modou Niang moo fa tëggoon trophée trophée groupe baax diggante Mama Yalla won ak Jara 2 waaye Jara daal daa doxantu ci kaw Mama yaa jël trophée groupe baax ba jàll dem aw yoonam leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ca Leewtoo TV ab jàkkaarloo bu safoon sab fa nga xam ne moo doon ca Pikine diggante Ousmane Gandi Gall ak Kool wala Kal bu sab ñoom ñaar daal diggante lu ñu lu metti bu ñu yeggee la 7 avril waaye des na beneen combat nga ca bu tàng jër mooy diggante taqe bu lam saar ak forsa 2 bu Faas mu mel ni kii daal foofa idaali ñi ngi moo fa jaar leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko fii nga xam ne mooy ca Leewtoo TV mooy Moussa Ndoye na fa daal di tëkku gargamboose tëkku yu méttee métte lam ko xam xamal day mooy bés bu ñu yeggee ca làmb ja jàppal dina metti ci moom tar ci moom ndax nag dina ko teg loo xam ne lu méttee méttee métti lay doon yëglikaay bi di Leewtoo TV moo nu ko wax waaye nun tamit danuy jëm ca Leewtoo point net fekk fa kii nga xam wala boog fekk fa sunum réew muy Sénégal championnat d'Afrique yi amun ca Tunisie daal réew ma boo bëggee dégg-dëgg lañ fa jëlee ci madaay moom doonut sakkanut ndax li leer yëglikaay boobu mu ngi xam ne day 70 kilos kii nga xam ne nii mooy Anta Samb moo fa am médaille d'argent ci jigéen ñi tamit médaille bi nga xam ne mooy or ba ka ko fa am mooy Adama Diatta 61 kilos mu mel ne Adama nag moom tàmm na loola kon daa jël la mu jëlaatoon rek muy médaille ba yëglikaay ba ba tey mu ngi nuy xamal ne classement général ba ni la jël ci fukki réew ak benn yoo xam ne ñoo ca nekkoon di ko jongante classement góor ña tamit yëglikaay ba di Leewtoo point net mu ngi ñuy xamal ne day Sénégal juróom benn place ba la jël sixième ci fukki réew ak juróom benn yu fa nekkoon tey jii daal yëglikaay bi ne na tey ñuy dugg si ndakaaru deux heures ci guddi yëg jóge fa nga xam ne moo di ca Tunisie leneen loo xam ne tamit fekk nañ ko ca Leewtoo TV muy ki nga xam ne nii mooy rëg rëg dem ca arène national wala boog ca fii nga xam ne moo doon Adrien Senghor un million lañ fa tegoon ngoon ne fay la fa jàpp final daan ko jëlli bu rëy songale caaka fay ña mbër ya fa nekkoon bëri na ñoom ibu Senghor ak mbër yu mag yu baree baree bëri ñoom booy fay waaye rëg rëg ari rek na ma ko doon waxee da la ko defee daal moom daal ñëw na di wan gaay li mu mane ak fi démb mbay guy gi moom dafa ma tooñ damaa commencé bay wax mu feleng alin Seye junior jàll demu yoonam waaye li leer ba leer day premier avril la ñu wax tey kon déglu leen bu baax a baax a baax li ma wax ci journaux yi Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngay àndoon nag moom si revue de l'arène ñu ñëw ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. Ah, maa lay fay Ndeye Coumba di la ziar tey di nuyu ñëpp ñu ñuy suivre fu ñu mën a ne si àddina bi rek di nuyu Talla mi bi Ousmane mi si montage bi waaye di nuyu ñu fu ñu mën a si àddina ñu ngi leen di nuyu si Leewtoo TV di ñaanal yàlla rek yàlla defal ñëpp xool bu sedd yaram bu sedd ci barke yonent bi sallallahu alayhi amin Babacar nu dooree ak sunu lamb bi nga xam ne tey si UNAM dafa ñëw si ne Fass toj na rajax ki si mel ni Moustapha Gueye nekkoon directeur technique bi bàyyi na euh, ki nga xam ni mooy Papa Sow ñu ne dàq nañ ko. ah loolu de bu amee moom du neex parce que lu tax mooy que ni tafaag yi defe naa ne bu ñu waxantee rek te yàlla tax si lamb ak écurie Fass mën nañ ne euh, mën nañ ne mooy Fass. parce que lu mu fa wane la quoi wane ko si làmb kon tey bu fa nekkee comme mbër bëree fa def fa lu ne ba bu xëy tekki ngembam

juddoo yaa ngi dégg doon de parcelle la dëkk léegi mais Fass lu joomu Fass pire la kon ñooñu moom bu ñu génnee ci écurie Fass kii démissionné muy Tapha Gueye papa ah dina doy waar daal loolu moom dina yéeme lool Ndeye Comba lu yéeme na Babacar comme ni nga waxee journal bi tamit mi ngi ñëwaat si ni euh, Tapha Tine euh, ku si mel ni Gris Bordeaux Ama Baldé ak euh, ak nee ñu saison bi ñetti weer si ñetti weer si des mais dafa mel ni que seen takk seen seen seen combat dina a jafe ren ñu am combat waaw loolu moom tam a bàyyi xel parce que nag saison bi mu ngi jeex te mbër yooyu ñu ñu lim muy euh, Ama Baldé di Gris Bordeaux di Bombardier ak Tapha Tine seen i soo ko tëggee au minimum des fois day dem bu gàttee ba gàtt 4 mois ci côté communication ak ay signature ak ay face à face kon suñu toogee ba saison bi des ñetti weer te amaguñu combat yaakaar naa kon ñoom bu bu ñu yéexee tuuti tuuti boo sàgganee saison bii moom mën nañ cee bañ a tamit seen i combat yaakaar naa ne mois de juillet rek nga ko mën a tëgg te mois de juillet parce que léegi mu ñëw parce que boo xoolee tey la premier avril xam nga kon yàlla yaakaar naa ah am nañu ay staff nag am nañ ñu leen yore na nañu xool bu baax a baax bu fekkente ne am nañ ay combat raisonnable ñu jël ko bu fekkee seen combat xaj na ci saison bi ñu jéem a bëri parce que tamit année balance bi moom ñoom ñeenti mbër yëpp mbër moom bëri moo ko jik mais di toog di année balance moom ndey kumba waaw gënul daal si mbër waaw Babacar xam nga 14 ban lan lay ban date 14 juillet day ah fàttali ma ko. mooy fetu indépendance France si la euh, Baye Ndiaye jàpp combat booy euh, booy ñaar la de guerre le 14 juillet euh, mooy fetu indépendance France. France waaw xam nga man nag sénégalais gi daf maa jàpp ba des fois bu réew mi laay gën a jàpp mooy sunu 4 avril bi ñuy waajal ah Baye Ndiaye tamit comme noonu nga waxee le 14 mooy fetu indépendance France mu jàpp ci komba Lac de Guiers 2 ak Boy Niang muy combat boo xam tamit ñu ngi doon xaar date bi kon loolu tamit amateurs yi dañ ciy sant parce que tamit bëggoon nañoo xam kañ la ñuy bëri ñaari mbër yi tamit bëggoon nañoo xam seen date bu ko defee ñu mën a fixer seen ay préparation parce que loolu tamit day tax mbër bi préparation mu gën ko mën a teg ci aw yoon xam planning yi ni muy liggéey yooyu mais di ñaanal daal Baye Ndiaye tamit 14 juillet boobu yàlla nañ ko fekkete tal ko te lamb ja ñu beneen combat bi nga xam ne amateur yi ñu koy waajee muy combat Moussa Ndoye Garga moom lañ jàpp le 28 avril euh, journal bi suñu laam tamit dem na seeti Moussa Ndoye sekk naa moom waxtaan bu yaatu nee na Garga daal na préparé ndax bi mooy septième défaite bu mu nar a am si carrière waa waaw loolu la wax moom Moussa Ndoye waaw boo xoolee Moussa Ndoye wax na ci sunu laam wax na kere ci Leewtoo TV ndax jël naa ko kere ajuma mu wax li am solo nag mooy que ni comme li olof yi wax rek euh, lamb moom bu si jëmee sa adversaire am nga droit di ko mën a ci communication parce que loolu lépp bataille la mën nga waaye itam euh, comme li ñuy wax rek adversaire de taille la moom Moussa Ndoye Garga it adversaire de taille parce que ñoom ñaar yàgg nañu ah, ba leer daal buñ avril rek ci kàttanu suñu borom baat bi seen diggante dañ xam ndax koy delloo ca defe mu nekkoon wala Garga day fayu parce que lu ci mënta xew rek bu ñu laalee lépp dina leer nu jóge sunu làmb dal si Leewtoo TV demoon ngeen fa démb dimanche amoon na ay combat yu yu mag yoo fa amoon ku si mel ni euh, Alioune Seye 2 ak Mbaye Alioune Seye Junior ak Mbaye Guy gi ni ngi woon arène nationale ba combat ba daal lu ñuy wax birib dip la woon 11 secondes la durée. loolu kay sax man ma xaw ma noo ko mën a moo est-ce que rawul sax birib dip kay comme ça ru rek man jotumaa sax a wax damaa teg bay waaja wax di fàttali xam nga le 31 mars dafa historique ci làmb daaw. boo fàttalikoo Gris Bordeaux Balla Gaye ca lañ ko doon cons fële ca eh, stade Léopold mu bëgg a dugg ca yooyu ak détails ya ak ca combat ba jékki rek seen mbay meeb tànkub àllit sëy ba sànni ko dem loolu nag li li muy prouvé mooy bi ñu leen xoolee ñoom ñaar ci biñ summeekoo wax dëgg yàlla bu fekkente ne da nga bu fekkente ne mbay li ne ci moom noon doole la ak Alioune Seye noonu mu mel noon moo ne ci moom danga nga naan yàppaat furu bu ñu bëree moom bu bu jàppantamee mbay yaakaar naa ne la la ñu gis yaram ba bu dee doole la bu ñëwee loola war na mën a yàgg effectivement loola moo am boo xoolee wax dëgg yàlla doolee fa feeñ parce que koo xam ne benn jàpp rek la jàpp sa tànk sànni la dem loolu mooy maa la ëpp doole ah, loolu nag liñ koy wax mooy mbay gi di ko féliciter di encourager ki nga xam ne mooy Alioune Sèye Junior mbay gi nag xale la mu ngi ci làmb moom vraiment daal mbër la bi nga xam saf na xorom mbër bu saf xorom la Alioune nag li ñu koy wax mooy mbër oyof toll toll baaxu ci mbër day xaw a tuuti mais boo oyofee de toro loolu wóorul parce que selon adversaire yi ngay dajeel xam nga grand combat yi amul poids xëy na petit combat mën nañoo xool poids yi mais grand combat loolu amu ci kon naa bëre lool yàgg na si làmb mais démb mbay da ko mayul fu mu bëree waaw plus tamit toujours si si bëre door bi Mamaya ak Jara ni noonu laale Essa eh, Diop Iba Mar Diop démb la woon drapeau groupe baax di di sama drapeau parce que groupe baax laa bokk euh, di nuyu président Massamba Dieye ñoom Khadim ak grand Modou Bey ñoom Modou Sarr ñoom ñëpp gis naa leen fa démb ñoom Dieynaba Ndione Marème bu Balla Gaye mu nekkoon lu rafet rafet rafet daal xam nga sëñ Assane Mesere ma koy nuyu bu baax a baax jara deux tamit nekk xale boo xam ne mu ngi ci yoonam vraiment démit loolu la ñëw confirmé daan ki nga xam ne nii mooy Mamaya bu Tëngéej jël drapeau bi li nga xam ne mooy groupe baax wala trophée ba loolu nag li ñu si jàngat mooy que ni Mamaya na xoolaat boppam parce que def dafet yi mu ngi tegloo te loolu baaxul si xale na xool bu baax a baax moom lu xew parce que boo xoolee du ma juumul bi mooy ñetti defet yu mu teglante yaakaar na parce que Ndandi Fall daan na ko fi mu jóge fa ñëw Buur Sine bu Bawal daanaat ko mu jógewaat fa tey jara de daan ko muy lu teglantoo loo xam ne il est moom mu xool bu baax a baax taxawaay bi jara nag ñu ngi koy félicité di ko wax ne mu ngi ci yoon bi moom tamit na gën a yokku liggéey bi Babacar nu jógee Sénégal dem ba Tunisie euh, Sénégal demoon na foofu participer si championnat d'Afrique yi fa amoon yóbbu woon na 10 mbër médaille si 10 mbër yi ñaar dong noo si am médaille ku mel ni Anta Samb moo amoon médaille d'argent si côté góor yi euh, Adama Diatta moo am médaille d'or loo xam ne lu yéeme la lu yéeme sax. waaw yéeme na trop parce que tamit vraiment championnat d'Afrique yooyu amoon ci Tunisie ñaari médaille képp ñu jëlee ko fa ci benn argent ak benn or vraiment du woon loo xam ne nii ah lu ñu doon souhaité la. mais nag compétition la da nga ko seq nag say nawle ñëw ñu ñëw ku ne di wut yow yàlla jox na la la nga mérito pour man parce que la ñu mérito rek lañ fa jëlee waaw loolu nag li ñuy wax mooy ñu leen yore moo xam entraîneur yi la wala direction technique bi ñu xoolaat bu baax a baax a baax équipe bi xoolaat loolu xew ba loolu am ni am parce que tamit loolu vraiment nekk résultat boo xam ne bu positif la ci Sénégal fi mu nekk nii waaw. nu jeexalee lu simple fii si Adrien Senghor mel ni que Reug Reug démb def na muy nam moom daan Ngor Ndeb Faye si si Adrien si si 17e waaw 1 million la woon ah yaa fa nekkoon yàgg biram ñi nga ak yàgg ah loolu nag comme li ñuy wax rek xam nga Reug Reug jël na tournoi des du info waaw du doon info voilà du doon xibaar parce que li tax mooy du doon info mooy tournoi bu mu dem rek. nit ñëpp li ñuy xalaat mooy moo koy jël te effectivement noonu lay demee bu ñëwee ci fukki tournoi boo xoolee jël na neuf yëpp loolu nag comme li ma waxoon kere laay rek li muy def daal mbër mu ko nangoo def xalaat naa ne mën nga am li muy am làmb joo xam ne yow ndey kumba nangu nga wut doole nangu nga bëri te boo ñëwee yaay diri sa bëri bi nangu nga ànd ak ñi nga war a àndal nangul leen loolu day dimbali sportif rawatina mbër parce que sport individuel li mu laaj dafa bëri parce que comme li ko olof yi waxee wàllug teen la moom na xëy na xam na yooyu ba nga xam ne daal bëre bi du ko foye ut doole bi du ko foye ñaan lu bi tamit da ciy def li mu ci war a def bu ñëwee tamit su arbitre soufflé day ñëw ne la dama lay daan si boo xoolee loolu lay bëree ba bam lay daan kon rëg-rëg jël na Adrien Senghor dem ñu koy félicité di encouragé Ngonde Faye Ngonde moom tamit mu ngi def ay progression yu garaaw garaaw ngi jël ay tournoi Adrien ak ci àll bi et puis tamit mu ngi final ndax foofu dem yaakaar naa booy Faye nga fa woon ñoom Ibou Senghor en 2000 am nga ñoom caaka euh, fay kon Ngonde tamit bu percé dem ba final final lu ak rëg-rëg rëg-rëg daan ko kon bu mu découragé quoi mu ngi ci yoon bi vraiment Babacar si kàddu yooyu la ñuy tàggoo mbokk internet yu ak ñi xam ne suivre Leewtoo TV di leen gërëm di leen sant di gërëm taalam bi nekkoon si caméra bi eh, di gërëm aussi Diallo mi nekk si si montage bi di nuyu sama yaay mère Sow di nuyu Aj Tandine depuis Italie chéri Khadija Diallo di nuyu sama doom Mohamed di nuyu Dadi eh, ne ko namm naa ko trop di wax Babacar tey nag xanaa dañuy waaj a défilé ji de ndax la 4 avril gis nga. Ah, tey militaire moom ñu nga ca caserne ya wala ca quartier ba ñu nuyu ñu ciy profité di nuyu suñu waaw repos ah repos du mën a ñàkk mais respect ministre de ministre des forces armées ministre de l'intérieur lépp lu xeetoog takk der rek lii nag 4 avril mooy xeeñ parce que parce que ñëw na ba pare moo tax tey gis nga fi ñu génn moo tax Zal Faye wooma boo ñëw rek mu defal ma nii ci terrain militaire Zal borom marché ci leen maa ngi lay nuyu di nuyu daal ñëpp ñu ne si armée nationale bi di leen ñaanal jàmm di wax ne que daal ñoom tamit ndey ko ma bu nu tëddee guddi di nelaw ñoom ñooy ne ci frontières yi ne ci mbedd yi di garder suñu sécurité di suñu ay suñu ay mbokk ci ne suñu ay lépp képp kuy takk der Sénégal rek ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm di la wax ne daal tey revue bi ñoom la ñu ko may rawatina nag ku mel leet naa aari si nekk fii école police ak ki nga xam ne nii mooy chef John Sina nekk fële muy camp Abdou Dia tamit di policier di ko nuyu waaye di nuyu tamit waa comico fa dama fa am ay ay yu baax ku ñu doon wax accident Cheikh Tidiane Sarr ak Mandiou Mandiou Touré ak chef Sane ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu comico lañ waaye tamit soxna Anna Cheikh Bintou Fall du ma ko sama yaay depuis France Khady Rose Ndiaye mu ngi France tuuti yaay yaay Sarr maa ngi koy nuyu bu baax a baax tuuti di la ñaanal jàmm di wax ne kontaan ci yow di nuyu sa yaay ak say sœur yëpp di nuyu sa famille mais di nuyu daal képp ku nga xam ne yaa ngi béggee Babacar ak Ndey Kumba Fall ak Aïssa Toog Taala ak Léew Toog Biram ak ñëpp nuyu nañ ñëpp ay Ndey Kumba ñaanal ñëpp jàmm waaye ku bëgg remercier ti leen Talla Seri Lebo Ngong borom café Touba